xam naa du ñu guddal ndax li ñu waroon wax yépp wax nañ ko ci arab euh, li fi nekk ci olof mooy sëriñ bi sant gi mu ameel ñi ko doon jàppale ci guddi maamam bii nga xam ne amul lu dul moom cheikh bu sidil maxtaar ayadahu llah wa nasara wa xafisa yàlla na ko fi yàlla bàyyi réew mi ñëpp a war a ñaanal cheikh bu sidi maxtaar xalifatul am li tariqati al yàlla bàyyil koo fi ndax njëriñ la ci réew mi magum diine di sët bi mag ci sëtu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci réew mi di ki mag ci ci réew mi di ku yàlla rus kooku njëriñal Sénégal la xéewalu askan bi la kon yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu gunge ñu ba ci kanam a kanam kanam muy sant bu baax a baax a baax taalibe yi nga xam ni ñoom la bokkal pas-pas bi bokk ak ñoom diine ji bokk ak ñoom tariqa bi ànd ak ñoom toujours saa su nekk muy guddi muy bëccëg ci liggéeyu maamam bi di liggéeyu cheikh bu Mouhamed Kunta di ndonoy Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa di nuyu di sant mbokki lislaam bi yépp ndax cheikh bu Mouhamed Kunta li mu woote woon mooy alwaxda bennoo benn wax moo gën a siiw ci waxam yi di muriduna kun aabidan wa naasikan mustamsikan bi hablillahi albaani فلا تميزن ولا تفرقن عباد رب الخلق والأكوان من قال لا إله إلا الله فكن له عونا بلا استئذان فهذه طريقة الجيلاني lii mooy waxi Cheikh bu Mouhamed Kunta looloo waral gàmmu Njaasaan boo xoolee ci wàllu programme religieux fii ci Sénégal moom mooy tëj gàmmu yépp ndax màggal a njëkk di safar gàmmu ñëw ñu ubbi ñëpp gàmmandoo Sel Xaaji Malick am ci xadan aziman waaye gàmm yooyu yëpp bu ñu paree waa kër Seydina Muhammad ngénte seen maam daal di tëj gàmm gi ngir ñaan réew mi am jàmm kon mboolem kër diine yi fi teew di sunu mbokk dëkkandoo yi nga xam ni bu doon politique la wala boog mu doon ay intérêt crypto personnel la bis mu nekk nga dégg Tiwaawan ak Njaasaan mais alhamdulilahi rabil alamin dañoo ànd ci yàlla bokk ci yàlla bëggante ci yàlla jëm ci yàlla moo tax mu mosuñoo réeroo ndax lu yàlla di yàlla réeroo du ci am sëriñ Habib di doomu sëriñ Babacar Sy Mansour di suñu wëllëre di sunu xarit di sunu magum daara ñu nekk ndowoon ak moom ca daara ja xilaasu zahab bii moo ma ko jàngal mu ngi fii teew ñu koy ziar bu baax ànd ak rakkam Moustapha ma bokkoon ak moom daara di soomi sëriñ Mouhamad di soomi sëriñ Babacar si Almansour ànd ak seen rakk sëriñ Mouhamadul Moustapha boo xoolee ci benn wàll ga ñi nga xam ni ñoo bokk lépp di waa Daaru Muxti di sëriñ Mouhamadan Mbakke di doomu xalif Daaru Muxti di xalifa maam Ibrahima Faati muy sëriñ ba Anta Ñang ànd ak rakkam di Cheikh Abdul Xaadir Jiilaani Moodu Awa Balla ak ñañu ko àndal ñépp ñu ngi ni toog kër Cheikh Omar Foutiou sunu wóllëre Cheikh Omar kan mi ngi fi mboolem turuqu diine yi kër Amre Ndaat ca Canaba ñu ngi fi Kaolack di sunu kër maam Alaaji Abdullahi Ñas ñoom ñépp ñu ngi fi teew nañ fi mboolem seen kër diine bu nekk ci senegal safoona na Njaasaan ndax Njaasaan mooy hamzatul wasli ndax Njaasaan xoole wuñ leen tariqa xoole wuñ leen ay kunta dañ leen a xoole njabootu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu loolu paree sëriñ bi mu ngi sant li waral cérémonie officielle ndax cérémonie officielle taxawaay la woo xam ni dañ ciy fésal liggéeyu gàmmu ndax gàmmu mooy li gën a metti ci programme sëriñ bi li ko gënal ci kaw suuf mooy maamam sallallahu alayhi wa nit ñi dafa am fu ñu toll ci gàmmu bidaa la gàmmu sunna la waaye gàmm wees na sunna bu sunna doon am lu ko wees ndax sunna ñett la lu yenent bi jëf walla lu mu wax walla lu nit jëf ci kanamam mu dëggal ko waaye lu yàlla jëfal yenent bi nag loolu farata la ndax yàlla wax ca alquran wa tuaziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila amagul benn jullit tawqiir rek taazim bi yàlla defal yonent bi nga mën koo defal yonent bi kon bu ñu tànnee benn bis ci at mi ngir tawqiir googoog taazim joojoo ginnaaw fukki weer ak ñaar bu ñu koy def salaatul ala nabi ngir jël benn bis wane si suñu cofeel ci yonent bi képp koo xamante si ni xëy na ñagasal nga ko da xamul yàlla li mu toll ci yonent bi sallallahu alayhi wa amuñu lu dul yonent bi ndax yonent bi nga xamante si ni mooy tax ñu bind képp ku yàlla bind buy sa maam danga war a daw sa giir dund ngir sonnal ko ndax du mérite chance la ndax yàlla mooy sàkk lu ko neex di def lu ko neex kon lu toll nii bu ko sës Ndiassane di yëkkati son excellence président Macky sàll xam ay responsabilités am ci réew mi xam ni Ndiassane dëkku diine la waaye dëkk la boo xam ni bokk na ci dëkk yi ñuy njëkk sant ci diine en 1883. ba tey 2023 muy 140e anniversaire te bis bu nekk muy gën a rafet kon président Macky Sall bu ñu booleeg son excellence monsieur le ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome mu taxaw ci taxawaay wu am solo ndax gàmmu ñett la zahir la ak baatin ak taxawaay baatin bi cheikh bu kuntaa ko yor zahir bi taalibe yee ko yor taxawaay bi Félix Antoine Diome a ko yor ndax am na loo xamante si nii nit mënalu ko boppam état moo ko mënal nit te loolu état mënal nit la ca waayu la cay wàllu Njaasaan moom euh, ministre de l'intérieur taxawu na ko ba mu mën sëkk waaye nag état dafa am nu muy doxe ndax moom dafa nekk Dakar di joxe ay ndigal ata mënoon naa jox ndigal ñoo xam ni ndigal la duñ ko respecté waaye ñun dama naan région de Thiès ñoo fi gën le administrateur administratif ndax lii di gouverneur de la région di Aline Badara Mbeng ba démb ñi ngi jokkoo ci lu jëm ci gàmm gi kii di préfet département di Mouhamadou Gueye di doomi sëriñ bi di taalibe di ku bëgg lu baax ba bërki démb def na loo xam ni bokkul woon ci programme am waaye fexe na ba ñaan ministre de l'intérieur ñaan ko gouverneur dugal ko ci mooy réunion sécurité boo xam ne da ko woote d'urgence fii ci Ndiassane ñu ànd xool lépp lu gouvernement bi digle woon ndax def nañ ko walla def ko loolu da koo def ak ci yitte boppam waaye bu ci amul woon ndigalu prise ministre de l'intérieur amu ci ndigalu président amu ci ndigalu gouverneur du ko def ndax ku xam état ni muy tëddee xam ne ifaal la ak laa tafaal kon monsieur le sous-préfet aussi di euh, Ndiogou Ndong sëriñ baa ngi koy sant bu baax

la la nga doon sàkku ci président lépp bu ma nee matul itam ndax lu mat yàlla rek ko ko am waaye jéem nañ ci seen kéemtalaay kàttan te lañ ci jéem du lu ñuy wax waaye lu palpaabul la te la nga xamante si nii sax dem na ba ci CRD. keroog CRD national di réunion nationale diggée nañ ci wax ci programme boo xam ne du programme mu Ndiassane loolu lépp nag ci iftitaaxul fikriya bu ministre intérieur bi am la ndax bu ko neexoon mu ni gàmmoo ñu fi indi waaye wax nañ ba wax ginnaaw gàmmu ba wax gàmmu déwén ci benn jotaay bi loolu lépp sëriñ baa ngi koy sant ndax ñoom ni ñu nekkee ndawal président ba lépp ñuy rendre compte président ñun noonu lañ nekkee ndawal Cheikh Bou Sidi Mokhtar al xalifatul am ba lépp ñu di ko rendre compte sëñ baa ngi sant bu baax sant nag mënta weesu shukran wa jazakumullahu anna xayran comme li monsieur le ministre wax léegi ci sàkkuteefu boppam ñun tam ci sunu sàkkuteef yéen membre gouvernement bi yéen taalibe yi yéen représentant turux yi yéen représentant ambassadeurs yi fi nekk yépp ñu ngi leen di ñaan di sàkku ngeen ñaanal Cheikh bu Sidi Maxtaar yàlla yàggal ko fi te wér bu loolu bu loolu paasee sëriñ bi mi ngi sant euh, ambassadeurs yi fi teew yépp ci suba ba léegi ñi ngi bagante di dem ak a ñëw mboolem ambassadeur ba ki fi mujj di ambassadeur Algérie ñu ngi koy sant bu baax ak mboolem ambassadeur yi fi ñëw Égypte représentant Qatar représentant Arabie Saoudite Palestine ñoom ñëpp sëriñ bi mu ngi leen di sant di leen wax ne jazakumullahu anna xayran ndax lii ñu def defaluñ ko ko seen bopp lañ ko defal ndax kuy yëkkatil Seydina Muhammad bis ngay jullit xam lan mooy dayob Seydina Muhammad bu nit ki rombee jëm Njaasaan war ngaa yëkkati benn cure-dent tegal ko ko ci yóbbalam ni ko maa la ko yóbbante ndax nga leeru ci leeru Seydina Muhammad yi kon képp ku fi ñëw rek sëriñ bi gis na la yéeg na la te itam ñaanam mi ngi ci yow di ñaan bu ñu tàqalikoo ba ke jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf alhamdulilah yonent benn toll nit ku nekk li mu am ci bis nañ ko ko bàyyeel wàññiwul dara yal na ko yàlla fay e, sëriñ bi nag mi ngi sant ay dëkkandoom ndax ak jaaru xabla daar cheikh bu Mouhamed Kunta bi muy ñëw Njaasaan dafa am ñu ko dalal muy dëkkandoo yi nga xam ne ñoom la dëkkal ci commune Chérif Lo mboole seen dëkkandoo di les villages environnants mujj rattaché wu ci Ndiassane doon ay quartier ci Ndiassane ñoom ñëpp seen ñi ngi fi ànd ak ñoom ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ci commencement ba ba léegi sëriñ bi mi ngi leen di sant di leen gërëm sëriñ bi mi ngi sant ñi mu bokkal meen bokk ak ñoom Cheikh Bounama Kunta ndax Cheikh Bounama 1800 la fi ñëw Cheikh bu Mouhamed Kunta gane àdduna sanc Ndiassane 1883 Cheikh Bounama bi mu fi ñëwee am fi njaboot Cheikh al Bekaay la taawloo caatloo Cheikh bu Mouhamed Kunta waaye seen njaboot ñoom ñëpp ànd nañook sëriñ bi ci bis bi di ndànk ndeer sanc guyat ak mboolem dëkk Kunta sëriñ baa ngi leen sant bu baax ñun ñii di président organisation Gàmmu Ndiassane ci ndigalu sëriñ bi ci sunu làmmiñ ñi ngi sant ñi ñi àndaloon organisation bi di commission scientifique Mohamed Babou jiite ko commission presse Ousmane Gueye jiite ko fédération des daayira Mohamed Diop jiite ko ak mboolem commission yu bokk ci organisation gàmm gi waaye nag di sant sant gu amul àpp sama rak sama coordonnateur muy El Hadji Mamadou Kunta di coordonnateur gàmmu Ndiassane di koo xam ni ku am yitte la ku am juhdu la ci liggéeyal maamam yàlla na ko yàlla taxawu yàlla na ko yàlla fay yàlla defal ko li mu bëgg euh, message su sëriñ bi ren nag lu gàtt lay doon ndax toogaay bi yàgg na manhaju tarbiya wa taalim li cheikh bu Mouhamed Kunta ku ko xool xool ko ci mbaar mi cheikh bu Mouhamed Kunta lenn rek moo doon yitteem mooy fexe ba jajale njabootu Seydina Muhammad ba ñëpp xam ni benn jëmuwaay la am benn bëgg-bëgg la am benn safoo la am muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon mu waxoon ci waxam jure ja di yow sama taalibe na nga nekk jaamukatu yàlla kon képp kuy xaadir di taalibe Cheikh Mouhamed Kunta booy faat waxtu wala ngay nekk ci li la neex yaa ci boole sa bopp waaye Cheikh Kunta boole wala ci wa naasikan mustamsikan bi hablillahi l baani képp ku royul yenent bi ci cig dal cig muñ ci jëllaleeg jéggaleeg tabe dañ da ngay da nga ni si cheikh bu ko nga bokk waaye bokkoo ci ndax mustamsikan bi hablillaahil baani képp koo xamante si nii jàppoo ci buumu yàlla gi yamale woo jullit ñëpp ñu doon benn xamal ni bokkoo ci cheikh bu Mouhamed Kunta fala tumayis wala tufarriq na ibada rabbil xalqi wal akwaani njaasaan kenn du fi jëw diine njaasaan mooy dëkk boo xam ne kenn du fi jëw tariqa kenn du fi jëw diine ndax ni cheikh bu Mouhamed Kunta jàngale ak ni cheikh bu Mouhamed Kunta toll ndax nee na bul taqale bul xejjale jaamu yàlla yi nee na képp ku naan ashhadu an laa ilaha illallah na nga nekk ndimbalam te bul ko jël mukk naan da koy boddi ndax cheikh bu Mouhamed Kunta li nga xamante si ni moom la doon woote mooy li maamam sallallahu alayhi woote woon mooy fastaqim kama umirta wa man ittabaa maaka wasalaamu aleykum wa rahmatullah na nga def